bismillaahi maa ngi way seydi maamur ak këram am jukkal te naan wan si diina jee fii njool mi jànqe woon fii la seydina beyti maamur turam nan ziyaare diina jee fii maam li noon seydina demal kajoor beyti maamur yaaka moom maamurang si diina je fii la alfu alfu am làkku ñëw koy ziyaar loolu doy na leen garaat jux leen ci diina je fii la alxuraan di soow naan isaara yeesu ko béyti maamu laa ko aj day jalaat si diina jee fii la seydina faloo fii la seydina matee fii la seydina yanoo ay mayam ci diina fii la seydina faloo fii yanoo ay mayam si diina jee waa kajoor yi gëm libaas te nu sant maamuroo moo nu war li di samsu diina jee man de aw ma ak payam moom ki tax ma xam sërif naan ko amana ba tey may walif si diina ji seydin maamuray ngalam moom ki woolu seydina naan ko amana ba tey muy jaraaf ci diine ji ruuga ker ba mi ñibbi seydina ka teeru woon li ma fay ko jëf ji mu jëf ci diina ji salli yaa ilaana summa salli man ala seydina limaamu laay ak ñëwoolu diine jee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 ibnu seydina mandion ibnu seydina imaamilahil mahdi alayhi salaatu wassalaam boole ko njabootu ahlu beyti gi ay rakkam mouhamadul amin maam libaas imaam mouhamadul moxtaar ak doom yi ak sët yeeg ñëpp doom yi buñ ci tuddee seydina laay bu seydina abdoulaye thiaw dina mën a yóbbaale doom yëpp di nuyu tamit alxaaji seydina jaxate di xalifob sëriñ Mamour Jaxate ci kaw suuf loolu la yàlla dogal euh, bu déggee way yooyu xam ni ñu ngi jub bisub ku amoon cër ci yàlla bisub ku amoon cër ak taxawaay ci kër Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam dañuy faral di wax ni bu Mahdi yu amul woon Isa ak yonentam dinañ ko xoolaat waaye wàccug Isaa bu àndul woon nag baytil maamur day doon lu ñuy xoolaat kon kooku ñu yëkkati way yooyu di ko tudd muy sëriñ Mamour Jaxate bisam mooy ñëw waaye doy na ci mayam rekk nit ñi xam ko yàlla du ko tudd sax ci alxuraan boo demee ci sóoratu tuuri dani wa tuuri wa kitaabin mastuurin في رق منثور والبيت المأمور يالا ساخ دا فا واتي موم با تود او تورم لولو دوينا تي تير تي موم وايي دويات نا تي تيريت يونت يالا عيسى بيم واري واتي اخر زمان يالا تيك دوغالام بيت المأمور با ملائكه دان تواف تا كاو ارس yàlla wàcce ko ci kaw suuf muy baytil maamuur fala Seydina Isaa Ruuhu Laay déparé fala faloo fala ko leer ga dugge mu déparé fa jóge Kajoor wara a jullee sul mahdiyul muntazar comme ni ko téere yi digge wo woon ni mahdi bu fi ñëwee bu fi jógee bu fi ñëwee ba jóge fi ay sab nu Mariam moo koy jullee mooy doon ab xalifaam ñeen fukki at ginnaawam yàlla dogal loolu am kon kooku bu bisam ñëwee jaadu na àdduna yépp yëg ko bokk na ci cëramit ker ba bàyyi lay roogay tàggook yaram wa mu fekk ko ci niig baytil maamur bokk na ci cëramit fa la génte wala boog fa la gise leerug li maamu def ab jant suux ci moom weer wi wàcc suux ci sëriñ Mamour Jaxate loolu doy na cër doyaat na cërit Seydina Limaamu bi dundee ba mu 63 ans at ya ma Muhammad dundoon mu gis ne at yi mat na te boobu Seydina Isa ibnu Maryam mi ko war a doon ko war a wuutu am fanweeri at mu taaj mag ñi ni leen at yi de mat na waaye su ma fi demee isaa du matal téere dina nu jam doy na ci cër kon xayru xalxilaay seydna muhammad limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam di sàkkook ñaan wax ña mag ñi li leen su maamur ñëwee de su ma ñaanalee ñaan nga yàlla dina ko nangu loolu tamit doy na cër waaye doyaan na cërit mag ñi xam kër gi ni mu tëddee ñépp a xam ni lu limaamu jaboote war nga ziyaari baytil ma'muur lu limaamu jaboote war na ci yow nga ziyaari baytil ma'muur kon boroom cër yu bari yooyu moom la bisam ñëw ñu koy waajal samedi bii di ñëw ñu ciy woo àdduna bi yépp ndax day nekk loo xamante ni euh, ballub tengsera boo sànni ci miir rek lu ca waay def day delluwaat si yow muy barke muy xéewal goo xamante ni day teer àdduna ak àllaaxira kon daal ñu ngi ciy woo jullit ñépp ku ko man ak ku mënul sax na yéeneem rafete sell ndax boroom daana wax ni sama bis bii di ñëwee ku ko teewe ku ko ku ci ku ko man boo ñëwee yàlla faj sa aajo waaye ku am yéene jox bëgg a ñëw sax tam lu la gàllankoor it barkeem àgg na ci dina la fekk fa nga nekk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 waaye di julli ci ab yonentam itam seydina Muhammad seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mi nga xam ni moo am jàmm yàlla nañu boole defal jàmm ñu ngi wax nag ci ndigalul xalif général de Layène Mouhamadoul Moukhtar ibnu seydina Mandione ibnu seydina limaamu lay alayhi salaatu wasalaam yàlla na fi yàgg lool ci wér ànd ak ay rakam ak njaboot gi yëpp njaboot gi nag bu ñu tuddee Seyna Laay matale na lépp moom mi nga xam ni mooy taawub Serif Abdoulaye mi nga xam ni ba fi góor gi jógee dani gàmmu gi mu doon def saxalan ko ndaañu ko ko defal ak ñaan depuis soixante 72 lañ ko commencé woon ca kër ga waaye ba mu koy commencé am na lu mu waxan noonu nag dañ koy commencé ci kër gi waaye nag bu ñu ko fekkee ba déwén ca penc ma la jëm ndax du ñaan goo xam ne gi ci kër lañ koy def kon 73 ñu yóbbu ko ca penc ma ñaan googu nag moom lañuy waajal di ñaan yàlla mi nga xam ni moo am jàmm yàlla na ñu fi defal jàmm ba ñu àgg fa ak jàmm fekke lu bare tam ci ginnaaw jàng yi yal yàlla defal muy góor goo xam ne nag saxeer wax na ci lu bari daldi koo xam ni kii mën ngaa wax a wax ba sonn bàyyi keneen ñëw wax ca du tax nga jeexal ay mayam la wax yu baax yi mu daan wax wala jëf yu rafet yi mu daan def waaye ba ñu ko defee ca kër ga sëñ Ablaye ni bu ne bu soobee yàlla dañ koy def ca pénc ma la mu ca teg moo di mooy góor gi nga xam ni ja moo jar yor sa oto di ko dawal di ko dawal ba oto ba mënatul dem nga wàcc sol sa dàlli weñ di ko sol di ko sol ba eh, dàll yi jeex ngir fekke ji guddi góor googu sëñ Ablaay waxaan na loolu keroog ci buus ba mu ko jëkkee defar ñaan kon bu góor goo xam ne bii ci misaal jar na ko ndax ba ko sëñ Ablaay waxeet ginnaaw bi al alsam salaam fiddili na ko ne na ku ko siyaari di nga am quarante ans yoo xam ni yi bàkkaar boo fi am def na la ko faral bindal la aw yiwu quarante ans kon loolu jar na fekk ji bisam macha allah yàlla nan yàlla may ñu tal fekke waaye muy góor goo xam ni gi comme saxeer wax na ko ku bàyyi lay gërëman la ku naa Isa gërëman la waaye ku diine ji gërëman la ci taxawaay ak jëfam kon bis boobu ñu ngi ciy woo ñëpp bu ñu nee nag ci ndigalul xalifa bi ak naa Laay bàyyiwuñu kenn waaye ñu ànd ci ak El Hadj naa Jaxate mi nga xam ni mooy xalifab Sëriñ Mamour ak rakkam yépp nag ci ndigal loolu lañu am ba tax ñuy wax ci lii ñuy wax ci moom ndax defe naa waxan nañu ko fi nga ni daaw kon ren dañuy dellu rekk di yeesal loolu ñu waxan daaw waaye am leneen lu ñu leen di fàttali muy ca place ba defe naa ni eh, di ngeen ko gis ci image bi mu di liggéey boo xam ne bii ca place ba pareegul ñoo nga ca nag waaye pareegul lu ci waay mën a am ca man ko cee def na nga ci jàpp ndax yàlla mooy fay noonu amuñu payam waaye yàlla am na fayam yàlla mi am pay nag lu ci waay def yàlla na la ko yàlla fay ñuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëw muy ci chauffeur si da dox wula moo xam loo mën di war nga ànd ak tey akub yar ba agsi ci palaas ba ñaan li ngay ñaan yàlla fajal nu aajo yi ñu ñibbisiwaat ci jàmm yàlla nañ ko yàlla defal ñu fekkee lu bare bare bare bare nag ginnaaw bis boobu ndax bis la boo xam ne bii bu jara fonk la ndax dafa am ñu ko fonk te nu ji ay kilifa ñooña nag ku leen ko fonkle ñu sant la ku leen ko jàppale ñu jàpp la waaye nag ku leen ko sabontale tam mën nañ laa ba kon nañu sa góorgóorlu bu baax programme bi ni muy tëdde moo di bu soobee yàlla buñ ca àggee bu ñu demee ba ci suba ga dee ñu fa jàng alxuraan bu soobee yàlla wàcce fa kaamil bu fekkente ni benn la wula ñaar wula ñett wula fu mu di yem bu soobee yàlla dee ñu ko fa def bu ñu fa jógee ca kaamil ba dinañu dem ci ngoon gi siyaari xabru ba ku fa am sa soxla boo ma war a ñaan nga ñaan ko bu ñu fa jógee nag ba ca guddi ga bu soobee yàlla ñu fanaani ca tànt ba yàlla na yàlla defal ak tal ak fekkee e jërë ngeen jëf yéen ñu fi indi waxukaay yi ak di filmer yàlla na leen yàlla dimbali ba seeni société jëm kanam ci barkeb boroom bis bi muy sëriñ Mamour Jaxate yàlla na yàlla yóbbu ñu ci ci jàmm delloo si ñu ci jàmm e, ku fa am ajo yàlla na ko yàlla faj foo yóbbu awtiis yàlla na ko yàlla faj ci barkeb boroom bis bi allahuma leeri bàyyi maamur jolli naa kajoor yéen am nga neel jux ci moom kon mu wan leen li maamu laay bay caabi firdaw si moo ko yor moo li maamu gaañi njool bayiti raw na leen moonu njëkk a gëm Limaamu Laay